Je voulais li parce que euh, bi euh, euh, maladie bi commencé tous les mardis nous avons ñu chaque mardi presque ou bien un mardi sur deux nous avons donc commencé depuis le mois de mars Il 10 dimbali ñu Nous avons def di def ba finalement ñu ubbi école yi ñu xalé yi jang amuñu problème en tout cas si biir école yi ñu def sen examen lepp jaar ci yoon a ah, wax deug yalla maintenant suñu défé non nak moy ñi ñoy inspecteur d'académie ñi ñoy société civile ñoy parents d'élèves ñoy ñooy enseignants yi ñun ñëpp dañu wara tok toog nan lañu doon def le mardi tous les mardis plan yi ñu doon installer ñu def bilan bilan bi ñu doon seet lan mo si baax lan la ci wara a euh, et remercier aussi les acteurs remercier également enseignants et les élèves parce que sommes les acteurs en réalité remercier parents d'élèves yi wax leen que ñun sommes ñu ànd société civile bi collectivité territoriale yi ñoom ñëpp ñu jóg maire yi ñëpp a ñu comme un seul homme ñu am ay résultats yu baax yu baax pour xale yi yu pour parents et pour le Sénégal comme nous ñu ngi nii di waaj année scolaire bi la dinañu am vacances un mois moy le mois d'octobre. octobre avant que ñuy dem vacances lañ ñu tok ñun ñepp ñu waxtaanal ci def lu ñu wax bilan ñu disons maintenant nan la ñu étudier au mois de novembre. donc sax même soudé am nañu séminaire de rentrée bo xamné day am fin octobre mais lañ quand même avant ñuy dem vacances ñi doon liggéey na ensemble depuis le mois de novembre euh, mars ba légui ñu tok def bilan donc lolu moo ñu fi indi won et wax dëgg yàlla kontaan parce que acteurs yëpp ñëw nañu parents d'élèves yi ñu ngi fi syndicats yi ñu ngi fi société civile bi mu ngi fi donc ak d'académie yi directeurs yi donc mun wax ne communauté éducative bi doon depuis le mars mars ba nous ñoom aussi nous fi ñëwaat tey pour que ñu mën a def bilan si li ñu doon def. bilan bi bilan bu baax la parce que soo gisee résultats yi ñu am ren euh, résultats yi baax nañu parce que nous ñu commencé jàngale déjà lolu jafe woon na waaye bi ñu waxee ne ñun suñu méthode mooy que classe d'examen examen yi ñoo war a commencé nañ lu tax ñu wax ko biñu waxé la ne le nombre d'élèves par classe waru ñu weesu vingt waru ñu weesu vingt xamoon nañ lolu pédagogiquement lan lay signifier lolu nak mo tax né ñu am aussi suñu canal éducation am suñu ressources numériques lepp donc soko bolé lolu mo tax ngay am résultat yu baax résultat yi ren baax nañu ñu ngi ñaan yalla nak déwén ak déwén ak déwén ak yeneen déwén yu bari que résultat yi nañu melni parce que xamna dal suñu améliorer conditions yi suñu améliorer conditions yi moy suñu défé comme niñ ko défé ren ñun ñëpp ñu am engagement engagement parents yi parce que lavana len apprendre à la maison lu am solo la mais lañu aussi que suñu demee ba reprendre année scolaire bi non seulement apprendre à la maison day am ñu ngi ci classe yi encore loolu day am mais aussi ñun ñëpp ñu dimbali xalé bi moy que ñun ñëpp ñu japp ci parents yi su dee yow am nga sa téléphone da nga jox sa doom né ko ah ressource numérique ngay def ou bien heure émission bi su joté ci canal éducation nga né non bay leen li bay leen ko momu sétane couram parce que cour bi lay jàng donc ñun ñëpp ñoo ci war a jàng aider l'élève à apprendre donc xam naa nag su ñu demee de génn tay ci bo dina am ay piste piste yooyu dina tax ñu liggéey ci pendant un mois comme ça suñu ñëwé semaine de rentrée dinañu xam nan lañu wara def pour tijji suñu année scolaire.